Amdy Moustapha Faye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi leen di nuyu di leen sant di <laughs> nga doon ancien footballeur international sénégalais bokk ci génération 2002 génération bi nga xam ne tey euh, mën noo wax football Sénégal te doo leen tudd euh, parce que euh, li ñu def ci wàllum exploit bëri na tey mu am kenn ki nga xam ne bokkoon na justement ci ñi nga xam ne ils ont fait rêver aux Sénégalais mu génn àdduna nan nga dundee. bi lépp nouvelle. waaw nouvelle ni mu ko dundee daanaka damay wax ne lu metti la lu metti la comme wax tamit comme xam nit xam na ne dund dund dee te yàlla mooy dund dund dee moo tax. donc loolu da nga koy comprendre surtout on est des croyants après fi muy dal si mooy comme en étant jeune surtout mu nekkoon ci génération bo génération boo xamante ni macha allah surtout moom ak jëmmam nitam nit nit ki mu doon nga xam ne tey jii ñun ñëpp c'est anonyme. Mhm. li may wax ni répétition rek lay doon ñëpp xam ne c'est le même même même même même témoignage lay doon mhm. bu bu nekkoon na koo xamante ni yàlla xañ ne moo dogal tey jii lii am mi nekkoon na nit ku baax koo xamante ni nit ku amoon pudeur la ku amoon kersa la si nit daawul sax si jëfoon nit donc euh, exemple la surtout ci ci jeunesse yi boo xamante ni daanaka regroupement bu masaan nekk un regroupement à l'hôtel di préparer ay match foo ko fekk boo ko fekkul heure añ nga koy gis heure reer ndekki sinon il est tout le temps dans sa chambre wala entraînement bokkul ak ñoo xamante da ngay topp ku nekk nga leen di gis wala que chacun a ku nekk ak caractère am mais moom caractère am nekkoon na koo xamante ku nëbbu woon la ku bëggoon discrétion ku bëggoon loolu ñuy wax borom kersa la woon daal. Mm-hmm. donc euh, tey seede bu ñu ko mën a seede répétition rek la ñuy wax waaye lu ñu ko mën a ñaanal daal tey li des moom tey moom mooy yàlla jégal ko ay bàkkaaram te te yërëm ko yóbbu ko àjjana incha allah. yow personnellement di Faye ban relation nga amoon ak Pape Bouba bu weesoo li nga seede ci ni nga ko xam. waaw relation bi moom moom Bouba daanaka relation bi yëpp à part peut xam ne moo doon ki mu bokkaloon chambre mooy Henri relation bi Bouba Seck ak Samba moom la Seck ak Demba daanaka nekkoon nit koo xamante ni dama wax ne la c'était anonyme ñëpp la amaloon kersa man damay wax ne ma daf maa rusoon ba. du ma si di xool mais daanaka peut-être ñëpp la ko defal te booba li ma gën a tey ji seede bi mën a seede ci moom encore mooy Angleterre ba li nga xamante ne football na fa te def fa jaloore bu rëy man damay wax ne damay sant yàlla ndax bokk naa ci participation bu ko andi foofu ndax tey ji gannaaw yàlla ci sama loxo la ko jaare pour mu mën a ñëw Angleterre ndax maa ci wax suñu ci wax sama agent wax ci ak suñu président bi moom ne ma yow fekk man dama waroon doon transféré beneen équipe ma woo ko ma ne ko foo nekk mu ne maa ngi Dakar ma ne ko booy il faut nga ñëw le lendemain je pense que ñëw ak magam bu ñuy wax Aliou yaakaar naa mu ngi may dégg xam na bu baax li ma wax mm-hmm. maa leen jëli Waterloo mooy aérogare bi jëli leen yóbbu leen hôtel pour boole leen après sama agent bi ak affaire gis nga nit ku nekk ak wërsëgam mm-hmm. yàlla def gis nga carrière bu mu def foofu Fulaam mu nekk ci légende la bokk actuellement ndax Fulaam yaakaar naa def na fa jaarale boo xamante ni gisuma ku fa def lépp lu bugg loolu lépp sant yàlla la loo xamante ni tey jii xañ na yàlla yóbbu na ko mais dañuy wax ne demul demul ndax nit ñaa ngi koy xalaat parce que tamit toujours nit nit nit nit ku baax noonu lay demee ci kaw suuf maanaam dana am na mais day ne presque demul parce que tey jëfam yi dem na waaye bàyyi na fi ay jëf yi nga xam ne mën nañ ko koo séddale. loolu la euh, ñëpp di ñaan. voilà ñëpp moom am na. Euh, tey euh, décoré nañ ko tamit à titre nan nga jàngatee li ni mel. je pense que loolu am na ko déjà te je pense que moom ba muy dund sax attend maanaam xaaruloon loolu mais tey sûr et xoolee boo bëgg léegi nit ñi wax ak ñi nga xam engouement bi am ba nga xam ne tey fépp lañ koy wax nga xam ne kon tey jii damay wax ne yàlla teral na ko te yàlla ko yàlla teral fee mu jëm je pense le plus important rek mooy jàngat na ñu ñëpp jàngat na lii moo tax yàlla bind lu muy dee bu dee amuloon yàlla du dem doomu mhm. donc on s'y prépare ndax dañuy wax ñu bari dañ naan dee dafay bette dee bettiwul à chaque fois di nga gis ko pour un proche bu génn àdduna mbokk bu kon dañ lay prévenir ne kon na nga def attention pour suba ne leer na sa bis dina ñëw. Mhm. donc tey lépp luñ ko mën a ñaanal rek lépp lu ko mën a ñaan mooy yàlla jëkkal ko ay bàkkaaram te yóbbu ko ci ndax jàpp nga ne anciens internationaux yi ci bépp discipline ah, ndax mhm. traitement biñ leen jox tey euh, toll na ci dayo gi nga xam ne ñoom def nañ ko ci wàllum sacrifice ak exploit. bu ne ancien man dama naan loolu loolu moom du ma man maay taxaw di ko wax sénégalais yëpp xam na ne benn respect respect maanaam yelluwaay yu ñu waroon jox un ancien koo xamante ni muy xañ ne bu dee ci militaire. Hmm. ñëpp gis nañ ko man duma ci sori ndax xaw ma ci lu bari waaye gis naa léeg-léeg di ñaxtu. waaye bu dee ci monde sportif dama wax ne amul benn respect respect laa wax foo xamante ni tey jii muy fédération bii tey jox na ko ancien supérieur léeg-léeg nga dem stade nga dem stade fekk kenn taxaw ci porte wala ñu téye ko ci porte ndax wala warul dugg wala nangam te pourtant seen loge yooyu ñuy joxe ñu fa mosul ñooy toog ci ay loge man par exemple dama joxe exemple mosuma jox ñu ba sunu maa jox fii. te boo ko waxoon tey ñu ne waaw billet yaa ngi fédération il fallait aller le prendre non da yónnee am na ñu yónnee sama kanam ñoo xamante ni toog nañ ba xaw ma ban heure 18 heures ba match bi commencé jotuñu ñu ne nekkee nekk fa wala nangam na wala na ñëw wala yu mel noonu benn. Hmm. man dama daa mas jënd sama billet pour participer au moins loo xamante ni tey jii du ñëpp bokk la muy jënd billet nga dem seetaani stade. Hmm. yelluwaay yi ñu waroon jox jox parce que tey jii ñun ñi ñëpp ku ci nekk man boog dama wax sama sama bopp. club a jaar muy en France ba ci en ba ci en Angleterre fu mu mas a dem bu ma demee seetaani match. c'est bras ouvert damay ñëw dugg dem seetaan le fait que boo ñëw présenté dañu gis la dañ naan la acca xam nga am na loo xamante ni on peut pas tey c'est pas le moment sax ma toog di mhm. parce que tey football bii damay wax ne kenn gënu cee yey daan football tey Sénégal gi dafa ñi akki football mooy ñu mësta football ñu mhm. mësta xamante ni mësunoo taxaw ci terrain ñooñu ñoo akki football Sénégal di ci def lu leen neex pendant douze ans et quelques yoo xamante tey lu leen neex la def ci respecté nu benn ancien footballeur tey sama classe bi bu ñu waxee li ñu njëkk a xalaat mooy ay poste yu ñu bëgg te poste tax noo jóg ñu lijjanti wuñu poste football bi gis nga ni mu sooxee suñu football local bi football football daanaka am woykat bu ko daa wax muy Omar Pène daana wax ne football équipe nationale bu baaxee dëgg-dëgg ci club yi lañ koy xamee ñàkk respect yu respect ci suñu club bi léegi ñu tudd suñu football bi ay professionnel professionnel ni kenn mënu cee lijjanti sax dépense sa biir kër te dama wax ne loolu saaga football Sénégal c'est pas le moment nag di wax ne mhm. c'est juste rek pour wax ne aussi li nga xam ne mooy ras-le-bol yi nga xam ne ancien football yi am nañu ko sama cas mais c'est juste parce que damay wax ak ñëpp damay wax ak ñëpp mhm. man je ne suis presque à Dakar temps en temps lay ñëw ay Dakar mais gis naa ne fii di fi gars yi di def fii muy manque de respect un ancien footballeur regardez le cas ay heureusement mi ngi fi pourtant xoolal kooku ñu ne y avait pas encore un milieu un mel ni kooku li mu apporte ci footballu Sénégal te xoolal doo gis fédération ñu invité ko wala nangam nga xam ne tey waroon naa mën a bokk ci staff le footballeur au football le football au footballeur gis nga le comment le soin au médecin xam nga. Mhm. avocat yi dem jéem a plaider. plaider plaidé plaidé nangam. mais mm-hmm. mënoo nekk lii ba pare bëgg a ñëw ñoo xam ne def na lu mat vingt ans ci football nga bëgg leen jiite ci xamoo dara ci football loolu je pense que loolu am na loo xamante ni rafetul fii ci Sénégal dafa mel ni nag léeg-léeg ancien footballeur bu wax dafa mel ne fédération bi ñu def mel ni ñoom ñooy seen ennemi fii nag ngeen ni di a dégg ñu ne nit dee na wala nit nangam na xoolal ñoom ñu mën a jóg na ñuy def ay ay ay te bu te ku ci xamoon ne tey ñoom ñëpp xamoon ne Bouba feebar na kenn mosu cee def geste article sax kenn mosu ko ci bind nga ku ci nekk di nga dégg mu wax médecin après la mort Sénégal fii c'est on est les rois les rois. lan moo des ci génération 2002 bu weesoo natt gi ñuy natt football ci ñoom. non fi mu nekk nii ku ci nekk yaa ngi yaa ngi yaa ngi nekk ci say activité ñii bëgg a def entraîneur nekk entraîneur Kalaas Aliou Cissé ñii bëgg a def leneen def leneen ñii bëgg a def leneen maanaam on léegi soo waxee sax ñu ne demuñu ci ay lijaas wala demuñu ci ay diplôme ça n'a rien à voir ku bëggoon tey su ma bëggoon suba suba su am ko waaye lijjanti ma la on peut pas tous être entraîneur ku ci nekk dafa am ci domaine gën a xoole sa bopp hmm. nga dem dund lu mel noonu c'est une vie te la vie est très courte maanaam dund dund gu gàtt la léegi-léegi sénégalais fa ñuy war a mën a waxee lu rafet wala waxe ko seen moroomu sénégalais ay yu rafet dañuy ñëw ñaawteef la ñuy andi foofu nekk na nation boo xamante ni léeg-léeg mënoo ko comprendre mënoo comprendre ñi warul wax ñooy wax ñi war a wax bu ñu waxee ñu ne pourquoi ñu wax. parce que tey jii ku mel ni ñun ay anciens footballeurs plus de vingt cinq vingt quatre ans vingt cinq de carrière nga mën a ñëw taxaw nga wax yow di xam pratique ak théorie. Mm-hmm. boo ko ñëwee taxaw wax tey ji di dégg koo xamante télé bi kese wala ci rajo bi da ngay saa yi nee na yow da lay mi nga xam def nga loolu te moom mës ta bougé fu mu toog nawetaan sax xañ a mës bougé loolu mooy Sénégal c'est boo ko waxee fi mu nii tey jii ñu ne nga moom nangam bu a dinaa def mooy point la waxee sa point faible bu gën a améliorer loolu ah, say lacune nga mën a travailler ci loolu loolu mooy adduna adduna dañuy ñëw ne la tey dafa mel ne un président de la république ñu ne tey réew mi doxul mais président boobu bu fekkee ne yeewoon dëgg la muy njëkk a def mooy day jéem a xool nu réew mi di doxee loolu ay critique la loolu du bañ ko c'est juste dañ koy dimbali mais Sénégal nag xamul loolu xamul lan mooy politique euh, critique te critique bu positive boo ko surtout ki xam ki nga xam ne football na xam na lan mooy football dugg na ci terrain de haut niveau kooku bu waxee waxul ne lu mu wax yëpp moo am mais c'est juste que luy defar lay kon am na yoo xamante ni je pense que taxaw di critique kooku naan day critiquer rek day def nangam Sénégal bi yàlla moonu moonu nattoo wax wax ci boppam ñi warul wax rek ñooy wax fi nekk. et justement comme ni nga ko waxee tout à l'heure ñu bëggoon a xam lan ngay xaar ci équipe nationale tey jii nga xam ne qualifié na déjà CAN 2022. léegi yàlla suturaal na qualifié nañ le plus rapidement possible ci des moom mooy entraîneur bi jéem a propulsé wu xool encore parce que euh, c'est ñaari saison ñoo am avant avant Coupe d'Afrique mooy saison bii ñu nekk nii en activité ay saison bii di ñëw muy en muy en deux mille vingt et un te léegi lañ cay teg mooy ñaari saison ngay football pour dem aujourd'hui on commence à avoir une équipe je pense que il mu ngi dégg ma dugal ay xale encore pour leen dama la wax ne football xale moo koy def te si maintenant maintenant la Aliou Cissé war a góorgóorlu pour déem a jël la jeunesse là surtout nos jeunes là qui qui joué sur bi passe muy mondial ñooñu moo bari na lool te gis nga équipe nationale day booster joueur day booster club parce que tey club boo dem équipe nationale ñu ne say sélectionné nañ joueur kooku da koy jox cër équipe bi ñun ñëpp a jaar ci loolu club boo nekkee international da ngay club boobu dafay respecté déjà un je pense que tey yann am na booy yu bari yu mën a ñëw bokk ci équipe bi bokk ci équipe bi te mu préparer relève mais bu bëggee da nga bëgg a def sa ossature boo xamante ni daanaka sa ossature bu vieillissant la boo bëggee ñëw ne kooku nga bëgg a gagné coupe d' gis nañ fi ay coupe d' yoo xamante ni yaakaar ne expérience la gars yi doon joué mais expérience gagné wu Coupe d'Afrique lii gagné Coupe d'Afrique mooy xale yu ndaw mooy gagné football africain ñëpp a xam c'est physique et te xale mooy football. gis nañ potentiel bi ne moo ngi fi mais ndax gis ngeen yéen ñi euh, di techniciens yi jot a def théorie ndax gis ngeen benn corrélation entre potentiel bi ñu am ak euh, structuration équipe bi. xam nga ñu suñu problème yëpp tey jii il faut pas aller de deux chemins. Mm-hmm. te loolu indi individualité boobu muy ku mel ne Sadio Mané wala Ousmane ñoom ñoo fay dugal bis bu ñu nekkul foofu rek problème lay doon bon kon collectif yi dañu war a gën a doxal ci li gën a suma collectif bi ci football équipe nationale mooy le milieu terrain aujourd'hui nag yàlla mu ngi ne sutural maa ngi commencé gis te xam naa ne bu ko bu nu ko yàlla dimbalee muy jeunes yoo xamante ni mën nañoo ñëw bokk ci équipe nationale bi kenn ñëwagum na mu desagum ñaar ñaar ñi moom mooy tey jii en milieu de lay wax parce que bu ñu ñëwee accompagner ku mel ne comme Gana mën na nekk seen mag mais ñi ay xale yu ndaw lañ te mën naa ne gëm naa ne fii ak deux ans ñooy reñe ci nationale muy ku mel ne koy wax nag boobu ba léegi muy ku mel ne jeunes jeunes depuis Aliou na takk fi tam te ñëw sélectionné booy booy yu mën a ñëw bokk ci équipe A bi ndax fii ak deux ans booy Coupe d'Afrique dañu war a ci ay xale encore ki nga xam ne moom mooy moom mooy soy son adjoint mën ci doon pour mu dem xooli booy bi nekk bii muy Aboubacar Soumaré ak ki ñuy wax Iliman Frédéric euh, nu hmm. je pense que ñetti milieu de terrain je pense que tey man am naa yaakaar ne bu ñu góorgóorloo tuuti deux mille vingt deux mën na nekk ndax milieu terrain boo xamante daf may leer na ñoom ñetti ñëpp ci nekk mën na def santi na ñoom ñetti ñëpp ku ci nekk mën def box box ñoom ñetti ñëpp ce sont des joueurs de ballon li ñu gën a mooy transmission entre la défense milieu milieu en attaque loolu bi ñu ko yàlla mayee mu ñii mu jël leen mu gëmloo leen lii la parce que tey essayé na pendant li mu fi toog yëpp cinq ans toogum na fi essayé na ay militaires yoo xamante ni ñoom ñoo xam ne sotti di gis na ne léeg-léeg ils sont pas aujourd'hui ils sont pas des compétiteurs hmm. dañuy match tey jii ko mel ne ngaan na gis nga ko y a pas meilleur meilleur que lui c'est un très bon joueur mais il est pas constant day ñëw tay def la match doo toog deux match doo ko gis tey ñii sont des jeunes te jeunes yi mu gëmloo leen tey jii gëm naa ne bu ñu jéemee boo jéemee bu dugal lii ci suñu man gëm naa ne dina am gain incha allah rabbi ñu jeexaleeg euh, candidature Augustin maître Augustin Senghor euh, ci présidence su CAF ban commentaire. waaw commentaire bi li may wax rek mooy on le souhaite de tout cœur sénégalais yëpp dinañ ci jàpp. yëpp bu dee surtout mu nekk un sénégalais war nekk président CAF ñëpp a ci jàpp oh, dina man surtout dinaa tàcc sama ñaari loxo ne ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla jox par contre ma gën a important li ma parce que loolu c'est en titre individuel. Mhm. bu ko ci bu ko ci yàlla joxe xayro ñu ko ci ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla bu dee bëgg na ko. mu bëgg ko moo tax xam naa mu dem mais le plus important pour moi damay équipe nationale ci sunu sunu football local bi ñoom fukki at ak ñaar xaw ma fukki at ak benn yi ñu gis nañ ni lu ba lu bëree bëri bëri bëri du ma ne lépp a yàq waaye lu bëri yàqu suñu football maanaam da ngay dem ba yow ñuy tudd suñu football local bi ñu naan la ay professionnel te problème yi dul jeex yu dul jeex ci àdduna moom la booy nga war a ñëw encore stade yoo xamante ni dafa war a tijji ñu football boo xoolee terrain amatul fii Dakar infrastructure zéro nga bëgg a ñëw tey jii nga bàyyee noonu suñu football Sénégal suba xamul lu fiy ñëwaat daana tabax bi tabax bi fi mu nekk nii daanaka la ñuy wax ne xañ na moom bu fi jógee en 2012 mille maanaam 2012 en 2020 21 la xamoo 2021 la war a jóge fii keneen ku war a ñëw mën a tabaxaat man je parle de li nga xam ne moom la ñu amee mooy national li nga xam ne mooy titre individuel nag léeg-léeg ñu ko koy ñaanaat te dañ koy dañ koy ba mu mën a jàppale ko ba mu mën a jël loolu mais wa je parle footballu Sénégal bi sooxe na sooxe boo xamante ni moom it loxo mu ngi ci woon loxo mu ngi ci woon parce que boobu ak léegi je pense que équipe nationale A kese du équipe nationale dafa dafa y a la petite catégorie y a ay suñu championnat mu ngi fi muy tey ñi yor ligue bi ak ñoom seen loolu lépp lu jar di coog la toog waxtaanee ko pour football bi jëm kanam parce que nii football bi sooxee di stade amatuñ ko dara lu xale yi war a mën a tey jii mënatoo dugg ci quartier ba gis fa sax espace bu ñu mën a footballé stade yu ñu tijji amu fi donc man damay dem wax ne lii day rey football à part aujourd'hui bu nu basé ba kese wala il faut professionnel pour ñu sélectionner donc ngeen di problème lay doon ngeen di problème lay doon ci leen ko bëgg. merci beaucoup. merci beaucoup waa réew mi. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf.